asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 8 décembre 2020 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay yi suñu lamb la ñuy xëy tey doore ko mu mel ni ki yëglikaay bi di suñu lamb nag moom ñaari mbër yi nga xam ne seen kujje ci lamb ku ne xam na na mu tare muy diggante Balla Gaye numéro de ancien roi des arènes ba ak Modou mi nga xam ne moom mooy actuel roi des arènes yëglikaay bi nag dafa ñëw tey ci ñoom ñaar sampaab laaj indi seeni palmarès fanu jaar ak at yañ dugg ci lamb ji yëglikaay bi nag dal di xëy nag laajte ne ñoom ñaar ñii kan moo ciy meer maanaam daal ku ci man wala ku ci raw wala ku ci dàq bëri yëglikaay bi di sunu lamb xëy tey samp boobu laaj ñëw na nag ci ñaari mbër yi boo xoolee Balla Gaye numéro 2 ku ne xam na ne le 2 janvier la dugg ci lamb dajek ku ñuy wax Samba Lawbe daan ko mu loolu dajek Pape Sène numéro 2 le 4 février 2006 daan ko muy premier duggam ci lamb mel ni kon Balla jiitoo na ko benn at ci lamb ba tey bu nu continuer yëglikaay bi ñëw na ci seeni at Modou Lo mu ngi ci 35 ans maanaam fanweeri at ak juróom Balla Gaye numéro 2 mu ngi ay victoire boo xoolee Modou ñaar fukk la ci am maanaam 20 victoire Balla gay numéro de am ca 21 victoire ñaar fukki victoire ak benn bu dee ay defet tamit ki nga xam ne moom moo di Modou am na si lu tolloog ñetti defet Balla gay numéro de lu tolloog ñeenti defet bu dee combat boo xam ne dañ ko bëre mu niil maanaam ndam demul ndam dikkul Modou benn la ci am Balla moom amu ca dara maanaam combat yépp dafa jeex bu fekkente ne nag ci wàllum kalaf la itam ñoom ñaar ku nekk gañ nga ci sa palmarès maanaam benn yoon nga ko gagné ñoom ñaar foofa ñoo fa tolloo ba tey yëglikaay bi ne nag trophée ANPS bi nga xam ne at mu jot dañ koy jox mbër mi dàq na ko boo xam ne jaar nga fa di bëri te kenn daanu la Modou Lo la ko commencé 2006 ba na ko di bëri ko ba na ko Balla dee Balla Gaye numéro 2 la moom seetloo nañ ne diggante 2009 ba ngay bëre tamit kenn daanu ko ba tey suñu làmb moo xëy ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu bu fekkente ne nag ñoom ñaar seen daje confrontation directe ya ñu def kaca raw maanaam Balla Gaye numéro 2 la ndax moo ci am ñaari ndam mu loo moom yow yemu ko seq Balla yëpp da koo ñàkk moo tax nag yëglikaay bi xëy na samp laaj boobu am ñum ci jox la nga xam ne nii moom moo di xalaat ñu wax ca bu fekkente ne Lamine Samba ma ca TFM di présenté jongante moom la mu gis ne ñoom ñaar daal seen diggante boo xoolee presque man nga ne égalité la ndax nag la ñu soree dafa bëriwul loolu la Lamine Samba gis kii di Bécaye Mbaye nag moom jàpp na ne ah bu ñu waxee dëgg rek moom moom jàpp na ne Balla daal moo jiitu ndax ne na ak lu mën a xew seeni combat yi ñu seq bëre ko Balla da ko caa gañe ñaari yoon kon ne na nag nit ki su la gañe ñaari yoon ci bés moom Bécaye daa jàpp ne kon moom moo la jiitu ak lu mën a xew loolu mooy gis-gisu ko nga xam ne moom moo di Bécaye Mbaye ñeneen ñoo xam ne ni moom boo sàgganee danañu yëngal de muy ñi nga xam ne ñoom ñoo di arbitre ya ndax nag yëg li kaay bi li am ba des daal daa mel ni moom nañ leen doxal la ñu doxale seeni mbir daal daa mel ni ak ñàkk jox cër da caa am que yëglikaay bi jàpp na ne du ñu dem ci beneen front maanaam beneen xeex boo xam ne daal jàpp nañ ne ñoom parce que gis daal mooy commission ba nga xam ne moom moo fa nekk daal wala boog bureau CNG ba daal ñoom dañ leen caa dugal te mbir yooyu daa mel ni ki daal neexu leen yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy samp boobu laaj ba tey yëglikaay bi di sunu lamb tamit am na leneen loo xam ne xëy na tey ñëw ci muy Adama Sandi ab promoteur ñëw ci lamb ji bees moom nag taxawal na ab combat combat ba nag diggante Vandam la ma ngeen xam nekk ca jaxaay ak ka nga xam ne moom mooy Boy Balde bu jam ñaajo wala bo waaw loolu daal lii lu yëglikaay bi xëy tey xamal ñu ko ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi di sunu lamb Pala moom di ab menace mu xëy di interpeller wala ka mu xëy sampal ko kaddu du kenn ku dul ki jiite réew mi di président Macky Sall Pala Diop daal la mu ko xamal ne ko Macky wala boog président fi nekk nii moom li nga war a def mooy joxe ay ordre ñu delloo si activité sportive yi rawatina làmb ji ndax jàpp na ne am na yeneen yëngu-yëngu xam ne ñu ngi koy def ci dëkk bi te boobu ba tey làmb ji xamuñu fu mu jëm loolu la Paal Jóob xëy tey samp ab laaj jox ko ka nga xam ne moom moo di président bi jiite réew mi di Macky Sall keneen koo xam ne itam Pikine la dëkk mel ni ki nag moom fan yi nu jëm day écolamba di xam ci assemblée générale extraordinaire wala assemblée générale boog boo xam ne daal fas nañ dem ngir nag xool ndax mu continuer wala boog nu mbir yooyu mujje loolu nag yëglikaay bi ne nañ daal dimanche lay doon la 20 décembre yëglikaay bi di sunu lam ba tey moo xëy ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi ka nga xam ne nii nag moom moo di El Hadj u CNC moom la mu xëy di wax bañ ko laajee kan mooy sa mbër moo préféré nee na moom mbër mi gën a fair ci làmb ji daal mooy mbërëm loolu la El Hadj ba tey bu nu fa nga xam ne nii nag moom moo di ca Vox Arena wala Equivox moom kan fay fekk moo di Tyson 2 boo xam ne daal mu ngay wax début carrière mag lam jot a def ak ak la nga xam ne nii fas na ko yéene defante ka nga xam ne moom moo di Franc mel ni ba tey vidéo booba mu nga foofa ba tey bu nu continuer jóge foofu dem fi nga xam ne nii moom moo di ca record record nag moom tey tafaatin la xëy séqal wax tafaa daal ñëw na ci mbiram ak yi nga xam ne ni daal moo ne ci boppam fi mu nekk nii nee daal roi des arènes couronne bii daal la bëgg a jël ci délai bu gàtt gàtt gàtt yóbbul ko ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di waa Bawol parce que jàpp na ne fi mu nekk nii moom lool kese kese la ñuy xaar ci moom tafaatin moo ñëw tey di wax lu mel ni ki noonu la ñuy wax ojaa nag wala jalgati làmb tey buñ fa demee jàppal ka nga xam ne nii nag moom moo di Balla gay numéro 2 moom mooy wax ak coach sam ba takk ay gaam di Lamine Golo ne ko daal dem ti yàlla bàyyi Balla nii la ma daan téele li nga xam ne ni moom mooy saaku bi may box est-ce que yow Lamine man nga loolu Lamine ne ko waawaaw maa ko mën ak jàmm maa la koy téel nga def li la neex xeex buñ ca yeggee bombar ji lu mu indi rek dana ko fa fekk loolu mooy la nga xam ne ni tey mu ñëw ci ojaa yëglikaay wala boog ci jalgati làmb ca sunu làmb ba tey hélas ah bu ñëwee tey ci xët mu yëgu xët mu njëkku yëglikaay bi di sunu làmb ñaari mbër ñaari wujj ñaari rival muy Balla Gaye numéro 2 le lion de Guédiawaye ancien roi des arènes actuel roi des arènes Modou Xarañ Lo mu Parcelles Assainies ah loolu yëglikaay bi ñëw na tey ci ñoom ñaar di xool ki ci maire boo xoolee nag chiffres yi hélas mën nga ne parce que rawante ci làmb parce que Balla 2005 la ñëw Modou ñëw 2006 yaa ngi dégg seen combat yi bëri na trop macha allah Modou mu ngi ci vingt vingt victoire Balla 21 boo xoolee 20 victoire ak 3 défaites Modou Lo muy 24 combats yaa ngi dégg Balla Gaye numéro 2 21 victoire. ak la nga xam ne moom mooy 4 défaites muy 25 combats kon ba tey sorante amu fa nii lii ba tey Moodu am na ci benn Balla amu ci benn maanaam combat yëpp dafay jeex kalaf Moodu gañe na ko benn Balla gagné ko benn trophée ANPS ah Moodu ñaar Balla benn roi des arènes Moodu benn Balla benn confrontation direct Moodu amu ci dara da koo ñàkk Balla gagné yëpp kon mu mel ni ñoom ñaar seen kujje ci bi ñu dugg ci làmb ak palmarès bi dafa sorante parce que boo xoolee 24 combats ngay gis ci kii di Modou 25 combats si Balla waaye nag li am ba des mooy fi ñu leen mën a tàqalee fenn rek la moom mooy maanaam daje yi ñu daje parce que yàlla dafa def bi ñu dajee ñoom ñaar parce que Modou bi mu njëkk daanu ci làmb Balla ko njëkk daan te boobu Modou daan ko jafe na bu bëreeg Modou ñime ko ci géew ba di ko daan lu jafe la Balla Gaye affronté ko daan ko Modou jógewaat fa di karawaase di karawaase di karawaase ba yegg si ci niveau bi yegg si yaa ngi dégg bay xalaat a jëli roi des arènes Balla itam nekkaat ci yoonam ñoom ñaar ñu liggéeyaat di liggéeyaat di liggéeyaat ba parcours boolewaat boolewaat leen ñu bëriwaat Balla daan ko kon foofu li nga mën a wax mooy bu fekkente ne loolu suñu papa Bécaye Mbaye wax dañ koy dëggal parce que ñaar suñu rawante hélas tolloo net net net loolu yombu la ama faw am amu kenn ki lu mu jiitoo kenn ki mënul ñàkk loolu faw ñu tàqale leen te tàqale bi du leen man boog fi ma leen mën a tàqalee man fenn la mooy ci daje yi daje te Balla daan ko ci ñaari yoon mu du ñàkk ñaari combat ci kanamu Balla Gaye numéro 2 kon ñoom ñaar man daal li ma xam mooy ay exemple lañ ci seen ay génération ay exemple lañu ci ñi nga xam ne ni tamit ñoom ñoon seen ay rakk nekk ci seen ginnaaw parce que ñaari mbër lañ yoo xam ne wax dëgg yàlla moom lamb am na jigu am solo buñ ci bay muy Balla Gaye numéro 2 muy Modou Lo waaye daal li ma xam mooy ah mën nañ ne Balla moo jiitu ndax moom moo daan ñaari yoon te loolu tam ñuy xool tey favori ci nangam wala daal dañuy dem ci papier yi ba tey bu ñu continuer kon diggante boobu loolu lañ ciy wax waaye leen ñaanal daal di ñaanal bépp mbër tamit ñoom ñaar wax dëgg yàlla daal xam naa ne comme ni ma ko waxee sax rek hélas boo doon wax ci ñoom ci làmb du doy parce que macha allah jox nañ ko cir fonk nañu ko te itam vraiment dañ ciy wane lu ama am solo muy ñaari mbër yoo xam ne ay royukaay lañ ni ko seen yeneen mbër yi nekkee tey ci ñoom la ñu wax bu nu continuer yëglikaay bi ñëw na ci arbitre yi ak zappe boo xam ne zappe nañ leen ko ci bureau CNC bu bees bi mais ni ki nag ah, ci li yëglikaay bi indi ci gëstoom neexu ne ñu frondaat maanaam buñ ne frond nag mooy demaat ci wàllum xeex ak werante te est ce war nañu mën a waxtaan ak fi nekk ñu xool ne lu jaadu la ñu war leen fa tabb ñu tabb leen fa waaye li gisu ma jàpp ne moom lañ leen war a gën a mën a joxlal mooy tey seen problème yi ñu doon jànkoonteel ba doon ko jooytu ba mu indi leen dàq loolu na ko CNG bi faj ñu fexe ànd liggéey parce que ñoom ñii di ay arbitre muy ñoom Malick Ngom ñoom Sitor ñoom ay Babacar Diop expérience moom am nañ ko ci au niveau du CNG moo am Van Damme Boy Balde ñaari mbër taxaw na Adama Sané ko taxawal ah muy combat boo xam ne tamit defe naa ñaari mbër yi sens leen ubbil danañ ko saisir ndax nag ku ci ne xam ne ne ñaar seen carrière at yi ñu génn ni xaw na am ay jafe-jafe ba tey hélas dañuy continuer ci journal bi rek ka nga xam ne nii moom moo di Pala Diop ca Pikine manager yore rëg-rëg moom nag président lay waxal pour làmb ji nag mu jéem a joxe ordre nag ñu euh, commencé activité sportive yi hélas nag fi mu nekk nii ah xam naa loo ci mën a dégg daal gars yow mii des fois nga dem est-ce que doo dem soirée parce que gars yaa ngi tëgg ay soirée ci ay restaurant ay baara ay hôtel jàppal bàyyil kon defe naa itam xanaa ñun war nañ ñoo mën a xoolal solution pour ñu war a mën a bëre parce que man ñun man su may wax hélas li tax may wax mooy promoteur bi jël xaalisam ay millions jox ko mbër muy nelaw wala mbër mi ñu jox ay millions moom boobu te ku a moom neexul kon defe naa itam war nañoo xool ay solution yoo a ubbi activité sportive yëpp sax tamit du tere mesure barrière yi nga xam ne moom la médecin di wax guddeeg bëccëg ñu di ko respecté pour que feebar bi mën fay jógee waaw loolu daal mooy li nga xam moom lañ ciy wax Malick Gningue ah le Euh, euh, maanaam âge ordinaire la ñuy def waa xam sa cosaan moom nag ku ne xam ne moo jiite foofa ah ñu xool ba xam fa wane di mujjee ki bëtam El Hadj sunu waa ji superviseur bu CNC nee na mbër mi gën a fair play mooy mbërëm waaw wax nga dëgg fair play baax ci lu mu mën a doon El Hadj nit day fair play du dara waaw kon yow ka nga tànn xam naa mooy ki gën ci mbër yi kon waaye moom joxewulu tur ki gën a fair play ki gën a fair play daal xëy na na xam boppam record tafaatin moo xam ne ah, ko bawol ci mbir yi moom bu résultat yi fi ngee jeex danañ xam mbir yi fu muy féete Tyson 2 ku ne gis na ko ci Equivox mu ngay wax ci digganteem ak Franc la mu nar ak yu mel ni ki noonu des na yeneen vidéo te ngeen xaaral fa yeneen ndax onge Njaay di ngeen fa gis vidéo lu yàggul xam naa fi ngoon hélas dina ko defar jox leen ko ndax onge mbër mu ñu war a gisaat la ndax ci làmb la boobu ba tey bu nu demee ah odia wala jalgati làmb hélas jalgatee ngi nii de Balla Gaye ak Lamine Gol ak Lamine Gola Balla ku ah na ko ndax na ma ko su baay Balla yàlla na ko yàlla yërëm taxaw wàll na ma doon téele saako ndax di nga ko mën ah Lamine dana ko waaw ak ma koy def ak jàmm nii laa koy def te bu bis ba Bombardier ji ñëwee lu mu indi ñu taq ci loolu mooy wax ja nga xam ne ni moom moo am tey ci odia waaye nag hélas faw mu ubbi sama téléphone bi nuyu suñu soppe yi ndax nag bul fàtte ne yàlla dafa dogal ma ñëw Equivox rek hmm? fan si club Equivox am di ab ay sénégalais fu ne ñu nekk fa ci diaspora bi ma di leen bëgge ñoom ñëpp ñoom El Hadj Cissé ah ñoom Mam Balla Espagne gaa yëpp yëpp yëpp Cissé maa ngi koy bëgge doomu ndeyu général Cissé bu Kër Massar Cissé doomu saalum taalibe Baye Niass maa ngi koy bëgge ca Brésil El Hadj du mën a ñàkk parce que faw ngay nuyu ñi lay safoo di nuyu ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ñuy bëgge fu ñu mën a nekk fan si club Babacar tamit maa ngi leen di bëgge 100 pour cent bi ñoom Baye Sall Dieng ca Paris xam nga ñoom ñëpp maa ngi leen di bëgge di bëgge ñoom Adama Ndiaye parce que hélas xam nga dafa am loo xam ne nii olof a ko wax ku la nekkal ci naaj wi rek boo goree war koo nekkal ci kër gi te dafa am ñoo xam ne nii wax dëgg yàlla lu ñuy def dañ ñu ci dañ ciy bàyyi xel daal moo tax ñoom ñëpp mënuma leen a fàtte duma leen mas a fàtte dama leen di nuyu bu baax a baax a baax gis nga commentaire yaa ngi nii ah àll joom moom sama rakk la maa ngi koy nuyu di jaaykatu téléphone ne ca Colobane moom itam mu ngi fii di commentaire maam Cheikh Bey moom tamit nee na a Babacar maa ngi lay béggee maam Cheikh Ibra Faye yow it maa ngi lay béggee bu baax a baax a baax a baax waaw Ibra ah. waaw moom moom day daa moom daa jàpp na sax Babacar waaw mu ba daa xaw a rëy ne Ibra Faye na Babacar traiteur la ciy xaalis Ibra <laughs> waaw du mën a ñàkk xëy comme nan nga ko gisee mais amul muskila yàlla baax na mais traiteur nag mu wax dëgg yàlla dañu sax yarul far yàlla def na jaam ndax fekk na que nag ah ñun nag moom dañu am suñu liberté waaw loolu la ñu yàlla dogal waaye nag du ñu tooñ du ñu wàcc yoon Mouhamed jàll mag lay béggee admira ah, Babacar moom tam maa ngi koy Babacar Sarr Aliou Sarr Abdou Limbay sama xarit ca États-Unis waaw Baye Sall Dieng Paris gis naa commentaire yow dañoo yàgg Baye Assane Mesere borom Mesere info maa ngi lay béggee waaw maa ngi lay béggee bu baax a baax Cheikh Bass moom mention spéciale ndax fu ma ne mu fekk ma fa ami fay yow tam maa ngi lay béggee tubaabu joor maa ngi lay béggee di béggee Omar jaaw ah Daouda Mbow gaa yépp daal bu mu limee dinaa di Moussa Gaye hmm, Fallou Ndiaye moom tam maa ngi koy bëggee daal moo fi ñëwoon tey ci yëglekaay yi di jéglu ñëpp képp ku commentaire jox ñu conseil tée nañ ko ku ñu ñaanal tamit ñu ne amin mais képp ko xam tamit dañu critiquer tamit dañ koy jël parce que loolu daf ñuy gën a yokk rek moo tax ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaan Sénégal dina fi yàlla def jàmm hélas